mais parce que on s'entend sur des règles. bien mm-hmm. ñoo jàkkaarandoo. Mm-hmm. bind ko. Mm-hmm. d'accord ci ni ku bëgg nekk candidat wala réew mi nii la fi demee. loi la loi nag wax dëgg yàlla. du ñëpp a ciy kontaan. léeg mu dox léeg-léeg du dox kon ni ko waykat bi waxee. et dans ce cas bien précis. je crois que ni li lay wan rek. ni ay acharnement ak yëpp dara amu ci. aujourd'hui tey bi ñuy def tirage bokk na ci ku nekk dafay def li mu war a def je crois que ñun aussi mënuñu nii comme ni mu ko wax léegi on fait confiance au conseil constitutionnel Euh, saluer mérite bi ñu seen liggéey ak ni ñu ko def ce sont les mêmes personnes demain mmh. qui vont décider kan moo war a nekk candidat ak kan ko nekk c'est vrai après nag mën nañu commenter xaaral rek mën nañu commenter après mhm. nga kontaan wala doo kontaan jaar na yoon wala jaarul yoon ça c'est autre chose c'est des commentaires mais il faut qu'on sur les règles du jeu bu ñu ci d'accord ba pare y a problème donc moo tax sur ce sujet du ma ci sori je laisse la place au conseil constitutionnel le jour où il décidera que monsieur Ousmane Sonko doit être candidat daf ñuy neex mun na xarit matal na li xamante mooy dossier pour yow pardon da nga jàpp ne Ousmane Sonko matal na dossier yi am soo ma laajee daal ñun ni ñuy organiser woowu. non dama lay dama bëgg xalaat ci ci ci maa ngi lay tontu dama leen soo ma laajee ñun. Mhm. benn bokk yaakaar ni ñuy organiser woo aujourd'hui li ci bari pour rester au pouvoir mën naa la ci wax. parce ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko soo ma bëggee laaj ci loo xam ne du sama rôle. Mhm. du sama liggéey. Mhm. xaw ma léegi nu muy def je ne veux pas insulter la ba. léegi d'accord léegi dama gis ne. lenn daal mën naa la ko wax. en tout cas dans notre camp. contrairement à l'idée qui est développée ça et là ragaluñu benn candidature. effectivement léegi d'accord léegi pour. maintenant nag lu loi bi wax ñu comme que Ousmane Sonko mu ne quatrième si si si liste gis nañ ne peut-être amul fiche euh, maanaam parrainage pour dem wuti parrainage citoyen du jour peut-être am na li nga xamante moo di parrainage des élus fële ci assemblée nationale. Mhm. mais dem na tamit euh, euh, dem na fee caisse de dépôt et de consignation. Mhm. mais foofu joxuñu ko li nga xamante mooy reçu d'encaissement. Mhm. est-ce que na tamit loolu du nekk maanaam benn frais parce que ñu gis mandataire yi nañ Ousmane Sonko matal na. xam nga yaa ngi wax peut-être li ngay wax yëpp peut-être la dans l'approximation te loolu lay éviter. dama la ñun nañu constaté ni ñuy doxale li ñuy constaté tey mooy bi ñuy def tirage. Mhm. il y a le nom de monsieur Ousmane Sonko. qui est sorti qui est sorti à une très bonne place d'ailleurs sax d'ailleurs et qui a été salué gis naa équipe communication bi yëpp dem mhm. plongé ci ci texte pour mhm. loolu parfois pour jaxase nit ñi rek ni leen sayee baax na dox na dugg na mais yow wax nga ko léegi tout à l'heure processus la ñu nekk buñ ci yeggee le conseil constitutionnel wax ba affiché ñun loolu la ñuy jël en considération leneen lu fi war a def lu fi waay def soit da nga bokk ci camp bu yéenewul mu bokk mhm. wala nga bokk ci camp bu jàpp ni war na mën a bokk ñaar yi rek moo fi am d'accord mhm. et man bokkuma ci yooyu moi je suis dans le camp de celui du conseil constitutionnel lépp mu def ci décision rek on accepte et on avance